clair bu ñu léegi kenn mais règlement yi nañ ko respecté ku ci am loo ci ñaxtu bindal ku bind tontu la ku bind tontu la soo bëggee ñu recevoir la lu ngeen xamul yéen presse bi premier face à face Balla Gaye booy Niang Boy Niang laal na Balla Gaye Balla Gaye bind na CNG ne damañ face à te dañ ne kenn warul laal sa morom te suma adversaire laal na ma ne mu ngi koy ñaawlu ñu tontu ko lettre ñu ne ko oui d'accord texte si daf ko regretter ñu ngi saluer yow sa initiative nga binduñu pour signaler ñu wax ñu ko mais xamal ne loolu dañ jël ay mutaay bi loolu dootul am d' abord te ñu tere nañ ko moo tax ñu génne ab circulaire tere ko ci kii xam nga loolu mooy dëgg bala gay eh, toogul foofu di def cëfër leneen mais dem na këram bind nañu lii vraiment constaté naa ko te man lii yéen a ko tere effectivement àdduna noonu lay demee remercie ko nag ci ba mu am ba def loolu donc loolu moo nekk ci kaay tënkati cité bi ma bëggoon ñëpp ñu rafetlu loolu ànd ci ba pare yeddaat nit ñi dem nañ jox gone gi ne ko nag yow da ngay bokk ci ambassade de la paix yi jàmm gën yi del wax ak ñoom il faut communiquer avec eux da di wax ak ñoom waaw da di wax ak ñoom Moustapha Senghor cité aussi la mu defoon la mu waxoon ca plateau ba woo na ma téléphone jéggul waa jéggul mais dafa juum xamul sax la moo ko emporté ba mu waxee noonu mais loolu nekkul ñu coobare c'est pour dire que combat bii ñaari mbër ku ci nekk dañ kaa bëgg Baba Rintelba.